alxemisi transport ak Pape Seck. jërë ngeen jëf yéen suñu mbokk yi nga xam ne yéen a baaxoo déglu seen alxemisu transport bi ñu leen di defal fii ci UCAB FM 103.5 ki leen koy defal di seen mbokk Pape Seck code de la route Sëñ Fallou Touba Auto Plus mbokk yi maa ngi leen di nuy yéen ñëpp di leen ziara bu baax di leen balu ak di leen ko baal di ñaan itam sama kàddu fekk leen ci jàmm ñaanal bu baax xalif général des Mourides ñaanal itam xalifa Cheikh Abdul Ahad sunu borom guddal seenu fan lool te yokk seenu wér jàppandal leen ngërëmal seen waajur yu baax ya ak seen maam Seexina Ahmadul Xadim noonu itam lañ koy ñaanal mboolem kilifa yëpp taalibe yëpp ak sunu mbokki donge yëpp mbokki seen alxames transport tey damay ñëw yéen ci xeeti passage yi maanaam xeeti jéggikaay yi nga xam ne code de la route mandargaal na ko ci tableau yi mu bokk ci signaux de danger muy tableau bi nga xam ne day nekk triangle ñetti koñ am rëdd wu xong woo xam ne wet gu ca nekk dafay nekk ci tablo ba biir gi weex lañuy mandargaal ci biir mu nekk couleur bu ñuul maanaam màndarga bu ñuul mbokk dañuy njëkk ak yéen ci li ñuy wax passage d'animaux domestiques passage d'animaux domestiques mooy panneau bu triangle bi nga xam ne dañuy def aw nag ci biir li mu lay yëgal nag yow dawalkat bi mooy yaa ngi jëm ci jéggikaayub mbooleem xeeti jur yi nga xam ne dañoo dëkk ak ñoom loolu la yëgal nag nag lañ ca màndargaal waaye tekkiwul na nag rek moo fay jéggee mbooleem xeeti jur yi ñu dëkkal dañ fay jéggee am na beneen panneau triangle bu ñu def kéwél buy daw xel yu metti boobu tam daf lay yëgal ne yaa ngi jëm ci jéggikaayu rab àll yi yaa ngi jëm ci jéggikaayu rabu àll yi ñu ñëw ak ci ñaari xeeti panneau yi nga xam ne ñoo yëgle jéggikaayu saxaar yi muy passage à niveau sans barrière ak passage à niveau avec barrière bu fekkee dafay nekk passage à niveau sans barrière ak saxaar lañuy def te biir ak saxaar képp la ñuy def te biir di la yëgal ne yaa ngi jëm ci jéggikaayu saxaar woo xam ne amul barrière amul dara table stop nga fay fekk ak ligne stop beneen bi dañuy def ci biir ab barrière muy passage à niveau ab ak barrière nga xam ne boo fa eggee di nga fa fekk ab barrière boo wàccee saxaar gaa ngi ñëw bu yëkkati ko saxaar gi ñëw ñu ñëw yéen ci passage pour piéton muy jéggikaayu nit ñi nga xam ne dañuy dox ak seen moom itam dañuy def ak nit ku séq ay jéego ci biir saa boo ko gisee sa itam daf lay yëgal ne yaa ngi jëm ci jéggikaayu nit ñiy dox ak seen tànk wala ñu toog ci pousse-pousse bu amul moteur bu boobaa nag yow dawalkat bi saa boo séenee nit ku teg tànkam ca rëdd wa njëkk ca moom sës ci trottoir bi loolu mooy wane ne kee dafa engagé wu pour jéggi bu boobaa bu boobaa ya dawalkat bi da ngaa war a teggi sa tànk bu laajee nga taxaw nga taxaw ndax moom moo am sañ-sañu traversé jàngale côté code de la yi wax ne nag faaw mu mat ñetti nit ngir ñu doog am priorité ngir jéggi déedéet code de dafa ne donte ab xale la bu tegee tànkam ci kaw rëdd weex wow yow dawalkat bi tegg sa tànk bu laajee nga taxaw nga taxaw ndax moo am sañ-sañu jéggi mooy passage pour piéton dañ koy jeexale ak yéen ci li ñuy wax endroit fréquenté par des enfants muy paro bi nga xam ne itam dañ cee def ñaari xale yu jàppante di daw boobu itam day tegtale passage ndax daf lay yëgal ne yaa ngi jëm ci bërëb boo xam ne xale yi dañ fay faral di tase mën naa nekk daaray arxuraan wala école française wala ab terrain de jeu maanaam fa xale yi daje di fo mu lay wax ne na nga bàyyi xel ci ne am na bërëb bu nekk ci sa xale yi mën nañuy jóge sa ndejoor di traversé maanaam di jéggi tali bi dem ci seen càmmoñ mën nañuy jóge sa càmmoñ itam di jéggi di dem seen ndejoor xel woowu ñu ci def ci biir table bi mooy wane na xale yi bu ñuy jéggi dañ koy def brusquement dañuy mel ni rek ay mala yuy jéggi nañ ma baal ci kàddu gi kon loolu itam la table boobu di yëgle ñuy sant ñëpp di gërëm ñëpp ba alxames bii di ñëw ñu ñëw ak yéen ci yeneen xeeti passage yi jërë ngeen jëf alxemisi transport ak Pape